Father waa ki ñu toogal nii nag c'est un très grand monsieur xam nañ ko seex la mais ki mooy père wëcc il a encadré pas mal de jours ñu bëri bëri su ma limee du ma matal jaar nañ ci loxoom ñu fekk ko kër baaba mu nekk nit comme te dafa yàgg ak ñun ci naaju Assane Diouf bii comprendre nga te mënul bañ a def témoignage si nit ki nga xamante ne jaar na ci loxoom ba pare mu yor ko Pero ci yan témoignage ngay def si sa poulain Baba Diawara. asalaamaaleykum yéen ñëpp maa ngi leen nuyu seen tur ak seen sant. di rafetlu seen émission bi quoi comme ni ko sama booyee sama doom ji waxee ci commencement bi. loolu rek moo am solo. Medina Medina ak Rebeuss yëpp benn la. comme ni ma ko waxee ci Baba. man jaraaf mais damay tase ak ay booy ñu naan ma père yow sa booy bi baaba jaare gis nga man su ma daan dem entraînement. su ma solee blouson bu bees dañ naan xam ne baaba ñëw na. après booy yi ne Medina dañ may def ne ma père xanaa baaba dafa ñëw ma ne ma tax lan ne dañ ci ay booy yu bëri sol mayam ma ne waaw. mu ne bu ñu mënoon am lu mel noonu. bi si weesu mooy baaba jaawara. Mhm. Ah, nu ma tudd koo xamul daf lay dugal safara. parce que nit kese la. man xoolal baaba maa ko mag fuus mën naa ko jur. Mhm. mais bu ñëwee vacance. Mhm. kër Diop si laa daan ne di nelaw bàyyi naa fa fii lay nekk léegi. Mhm. joxuma million joxuma dara mais daf ma yëg. xam nga wax am na yoo xam ne kenn mënu ko wax. baaba jaaw rek comme ni ma ko waxee bu jógee vacance du dem baal du boîte de nuit. baaba ñaa baaba ñetti takk na fi jabar ngénte fi ñetti doom du baal bu ñuy tudd day wàcce kaamil. bu ñu paree mu def ay cant sëñ Touba. te sant sëñ Touba rek fi des. am na benn année boo xam ne ah, dama ne ndem si yàlla Cheikh Tidiane si boo jumaay jàkku Rebeuss. damay julli foofu ba pare. mu jékki jekki ne ma waaw Ousseynou Fall. comme xam ne man Diop si sama xarit mu ne mais dama bëgg Diop si ma ne ko xaar ma julli par ne ko non pour lan Diop si xaar mu gisal baaba. mu ne ma waxal ma ko baaba. far may génn li ma ñëwee ci baaba ne ko mais baaba. Cheikh Tidiane mu ngi lay wër nee dafa bëgg ñu lalal ko euh, mba euh, jàkku rëbës si sajaada ay basan mu ne waaye lal naa ko pare man ko looy wax ni yow boo gisaguloo Cheikh Tidiane mu ne ko ndeke man damay génn rek mu gis Cheikh Tidiane Cheikh Tidiane woo ko ne ko jàkk ji laa mu nga lal ko mu dem lal ko te feeñu man maa ko maa ko wax mm-hmm. amul keneen koy wax mm-hmm. loolu rek lu baax la am beneen yeneen boo yi nga gis fi ñu toog fi yëpp ku nekk am nga kër mm-hmm. hmm? mais ni baaba mel ci ñoom la baaba joxu leen million mais baaba man dama ko fàtte wax sax dafa yar ñii. ñii léegi dañu yaru man dama def constat boobu. Mhm. yàgg naa Rebeuss yàgg naa fépp. Mhm. ñi ñëpp maa leen yor amul ko mu ci yorul kade. Mhm. ñëpp yor naa leen. mais ñii dañu yaru léegi parce que ci baaba jikkoom la. baaba moo am euh, comportement bu baax baaba dafa modeste. yow yaa ngi la preuve yaa ngi ñëw nekk sax kii mooy baaba jaawara moom la nii la mel. kiloot rek lay sol. kiloot rek bu ñu paree nii boo yëgee ci kaw da ngay fekk muy entraîné ñii ñëpp. mais mën na ko ci bañ a fekk ba pare moom bu demee bu fi bàyyi xalem xalam day dal. Mhm. ku nekk am na lu mu la sant looy def loo xam ne moom du ci xalaat. bu ñëwee day loolu yëpp kii dañ koy ñaanal bu baax a baax. Mhm. man mayu ma million mayu ma dara mais yëg bi ma yëg rek. Mhm. may ñëw nii ci kaw laay yëg. añ bi bu ñëwee bu ñëwagul su ma ñëwagul moom doo añ su ma ñëwee rek ñu añ. su ma fekk su ma noo añal. maa ñu naan tay ataaya. commencé waat kii dañ koy ñaanal bu baax rek kii dañ koy ñaanal. bu baax a baax parce que moom ku xaar rek yàlla na xaddi kii ku baax la ku gore la may ma million may ma dara de benn montre bi la ma may ana moom valeur bi trois cent vingt cinq millions la donc benn jaguar su ma ko takkee gaa yi demee xool moom moom ma ko may bi mu nekk Séville la ndeysaan bi mu nekk Séville nag moom amul kenn ku lekkul ci xaalisam koo xam ne jege nga ko. Mhm. am na séeréer yoo xam ne dama leen wax rek loo xam ne si sociale la. Mhm. dañ koy wax koor da daan dugal kër bu ne day dugal saaku ceeb ak suukar kenn du ko xam. Mhm. Ah? day dugal saaku ceeb ak xaalis kenn du ko xam yenn saa yi baaba da ngay jékki-jékki toog am na benn émission am na benn femme boo xam ne daf ko waxoon soxlaam. baaba rek leen ko. bi da koy gërëm bay jooy. mu wane kaset bi mu ne xoolal kii man ne ko mais yaa ko dimbali. parce que daf ko dimbali. Mhm. boolewul cent mille francs mu jokk jox ko te kenn waxu ko xamu ko. Mhm. femme boobu bu ko dugul woon kenn du ko xam. Mhm. yu bari itam yooyu itam bari na ci. yenn saa yi da ngay gàcce fii xale yi toog mu jënd ak këram ah nu mu tëdd ak bisaab jox la ñu lekk xale yu ndaw yi. loolu mooy problème comme ni mu wax nii noonu rek la mel. du changé xaalis itam li mu wax dëgg la et nag. fi mu fi mu nekk fi mu jaar wax na dëgg. Mm-hmm. am na yoo xam ne bu ko nettali woon fii moom day jooy wala yaayam jooy. Mm-hmm. parce que kii dafa daan dimbali yaayam moo tax yàlla fay ko. kii defal na yaayam lu ne. Mm-hmm. lu ne defal na ko. yenul ko ay bool mu dem jaay. raxasal ko soog a dem entraînement ñëw du ci bëgg a dara loolu nag la ko yàlla fay. man maa ngi rappelé bi euh, bi bi ñuy signé contrat maa ngi koy soog wax sax man maa ñëw fekk fii. Euh, ndey euh, yaayam amin ndey amin mm-hmm. ma ne ko may da ngay dem seeti président Jara Gia ma mm-hmm. ne ko pour mu bàyyi mu signé licence bi pour sa doom dem mm-hmm. mais bi mu demee foofu dem na fa waaye bi mu ko ne expliqué man nii laay def nii laay def dafa ñëw nag mu ko buy ñëw mu signalé mu signé ko nee na jour boobu bi muy ñibbi Omar Ndiaye daf ko may dix mille euh, koor la fàtte man mosuma ko wax maa ngi koy soog a wax témoignage yu baax yooyu yooyu ko yaam di topp da ñaan yooyu moo koy dal ak ni muy dimbalee nit ñi dañ koy ñaanal rek yàlla na ko yàlla lafal cat yàlla bàyyee ko suñu kanam a kanam ci naa Seydina Muhammad barke Sëriñ Tuubaa li ma gën a bëggee nag mooy gëm bi mu gëm Sëriñ Tuubaa te wóolu ko dëgg la taalibe piir a ngi nii dëgg la billaay li may wax du dëgg la li may wax nag mhm. du ma naa feex du ma dara man kenn saxalu ma suugar mhm. may ma million may ma dara mhm. mais daf ma yëg rek man ku ma yëg million man doomu léb lébu la ku ma yëg rek ma yëg la ku ma yëgul yëgu ma la xamal ma a mais ñoo lay ñaanal fiis ñamal ci jàmm yal na yàlla jàppal yéen tam seen affaire bi yàlla na gën a yokk ngeen waa raasale ko fépp foo leen xam rek dem leen koo xam ne si sportif la seeti leen ko parce que aaba tam li muy def nii day defal benn affaire laa bëgg nag mu wax waxu du ko wax mukk dama koy topp ba tey pour ñu créer école football académie. parce que mënul def sport ba pare ba pare bàyyi noonu mënul nekk. maa ko ci topp rek. keroog émission télé bi mu ñëwee waa ji laaj na ko. maa ngi ko ci topp pour ñu créer école football. ci loolu rek laa nekk man ak moom. te am naa dinañ dinañ sotti. jërë ngeen def maa ngi leen gërëm di leen sant. incha allah wëcc vraiment témoignage yi rafet na parce que bu ñu nee diw baax na rek mbokk yee ko wax. Baba Diome dafa rafet ah, man maa ngi dëkk ba Medina macha allah xam naa fa lu bari. kon bu ñu nee baaba dafa baax rek c'est pas pour lui jeter des fleurs mais c'est parce que loolu mooy réalité bi. du dëgg tey ñun xamew ñu la ci caaxaan xamew ñu la ci dara parce que da contribuer ci suñu suñu éducation. comprendre moo war a tey daje bi mu rafet. yow it yàlla na la fi yàlla bàyyi. ñëpp fekkee kenn bañ a manqué parce que genre yu mel ni yow wëcc dañ dañ ci ñaan yàlla ñu bari la ci. xam nga genre yu mel ni baaba dañuy ñaan yàlla ñu bari la ci parce que dañuy motiver jeunesse bi. parce que tey ku xool kii la personne qu'il ak koo mënti doon rek. di nga xam ne àdduna amul solo taalibe moo am solo taalibe la ko nit ñi toppee te man damay wax benn témoignage bu ndaw ci moom fii laa koy waxee bu ku mu neex bu bindee yàlla moo xam liy xew suba mais moom xanaa mu bëgg a mën a sonn naa damay récupérer mais tant que mu ngi koy bëgg day xaatim. Mm-hmm. te teguma ko fen ci xolom bu rafet laa ko teg ak nit bu mu doon. Mm-hmm. yàlla na ko yàlla defal jàmm. defal ko ay rakam yëpp. parce que lii dafa nice boo ñëwee fekk benn jour professionnel nit ñi bàyyi seen kër ñëw nekk ci këram vraiment lii c'est c'est étonnant. peace and love